bi ñu dellu si ci yëglekaay yi li ñu xëyee euh, Mortala Gaye li ñuy waxtaanee tey mooy euh, diggante Yewwi Askan Wi ak Taxawu Sénégal yàgg nañoo dégg xalifa Khalifa Ababacar Sall di mm. fàttali tout le temps ni moom Yewwi Askan Wi bokk na ci ñu ko sos euh, ndax jàppoo ni ni ñu leen génnee ni maanaam lu officiel kese la waaye c'était acte depuis longtemps ndax gis nañu ba dialogue bi commencé ba léegi diggante Yewwi Askan Wi ak Taxawu Sénégal rataxatul ñu dolli ci nag démb ba ñuy ba ñuy defaraat bureau bi foofu waaw soxna naat dañuy wax sax ni xalifa euh, Sall moom mooy géniteur u euh, Yewwi Askan Wi waaye dama bëggoon rek euh, ñu dellu si ci sunu invité bi démb li mu waxoon dafa wax ni waaw mooy mun a busoo ni Pastef ñu bañ ko ñu nangu ko Euh, moom mooy la locomotive de Yewwi Askan Wi te boo seetee fan yi dafa mel ni dañu nekk ci lu ñu tuddee dépastevisation maanaam euh, Pastef euh, boo seetee dafa mel ni système bi ñoom système bi ñu doon xeex système bi léegi moo ñëw mel ni lu leen di broyer te ci broyer boobu boo seetee Pastef day cumuler les malheurs boo seetee tëj nañu seen leader muy Ousmane Sonko di dissoudre nañu parti bi euh, ministère de l'intérieur tey waa l'observateur ñi ngi ñuy yëgal ni euh, génn na benn ndogal daat ni Ousmane Sonko mënatul woote amatul droit woote te yamuñu ci loolu euh, Pastef ay postu yamu amoon as néew ca mairie Dakar léegi nangu nañ ko jox ko ñeneen euh, mu mel ni malheur bi waaw ci adjoint euh, waaw euh, am na benn mais quand même ñëpp xamoon nañ ni réunion bii nii liñ ci jublu woon mooy Abbas Fall mi nga xam ni moo nekkoon premier adjoint ñu tëbal ko parce que benn malentendu bu ñu dégg woon la ñoom ñëpp parce que premier adjoint bi normalement jigéen la waroon doon mhm. waaye dañ ko bàyyi woon noonu xaar ba problème am nag ñu ne eh, nañ ko liquider sax benn yoon moo tax moom mu wax sax que ni lii procédure de liquidation wu Pastef bi la bokk donc euh, ñu jàpp ni ñoom vraiment ñu ngi ci ay jafe-jafe yoo xam ni waaye ca wàll ga boo seetee mm. euh, ci mairie Dakar conseiller Benno Bokk Yaakaar yi sant lañ fa mais boo seetee léegi am nañu trente post maanaam am nañu lu mat fanweer ci ay post mu mel ni quelque part également giwee nañu yeew yi léegi ñi ngi mel ni mburoog soow ak euh, benn Bokk Yaakaar te loolu day firndeel ni politique Sénégal Euh, sama xaritu tey mën na nekk sama noonu euh, noonu euh, suba sama noonu démb. mën na nekk sama xaritu tey mais pour parler de Mburoog Sow parce que ba ñuy wax Idrissa Seck ak président Macky Sall Mburoog Sow daf fekkoon mu ñëw rejoindre ko de façon officielle. mais dafa am ay fait yu bëri yoo xam ni dafa ñëw di firndeel loolu boo seetee sortie bi fi Barthélémy Diaz dafoon. ba mu indi sax réeroo ci euh, yeewi askan wi mooy euh, affaire bi mu doon organiser sommet bi mu doon organiser forum bi mu doon organiser à Dakar mm-hmm. nga xam ni moment boobu il était voilà euh, tout miel avec Macky Sall euh, foofu je pense la commencer ensuite mu am ay fait yu bëri yoo xam ni dafa attesté ni vraiment ñi ngi doon sax gisee am na ñu sax wax ni ñi ngi doon gisee ainsi de suite donc mais moment boobu également ci lañ seetlu vraiment benn séparation bu commencé am entre yi ak euh, taxawu Sénégal te je pense décision bi yi Askan Wi jël daal ni euh, dañuy dàq euh, taxawu Sénégal peut-être ci fay yooyu rek lañ ko mën a imputer dañu jël fay yooyu yëpp. ñu analyser ko daal ni ñii daal dàq moo gën ci ñoom je pense euh, mais loolu du yam rek ci Pastef parce que xëy na peut-être tey taxawu Sénégal la ñu am mais dafa mel ni dafa am lu ñuy tuddee la ronde des vautours maanaam euh, fi mu ne nii Pastef comme moo doon locomotive bi du rek euh, taxawu moo ci nar a profité mais ñëpp ñi nga xam ni. ci Yewwi te bëri nañu déclaré nañu seen candidature mais ñooñu aussi dañuy jéem a ron euh, rôder autour euh, de li nga xam ni tey mën nañ ko tuddee waaw cadavre ah. Pastef pour euh, mën ci am électorat mën ci am ay nit yoo xam ni dañ leen di accompagner pour la présidentielle de 2024. Mor Talla kon danga nga jàpp ni ñeneen ñi nekk ci biir yeewu ce sont les non mën mën nañu jàpp ni. Euh, mën nañu wax rek que ni y une ronde des vautours bu am maanaam vautour maanaam c'est en fait noonu nga ko mën a tuddee. waaw man man parce que quand même. Euh, ñoom ñoo doon ah, locomotive ñoom ñoo doon locomotive nu mu tuddati. yeewi euh, askan wi. tey jii bu ñu dissoudre parti bi tëj euh, leader bi mais ñépp ñi nga xam ni presque parti bi xëy na fi mu ne nii wax nañ mën nañu wax ni dafa daf dafa dee hmm. mais lépp li lépp li euh, jóge ci parti bi te muy nekk militant mais il faut ñu dem ci yeneen parti bu hmm. fekkee peut-être euh, wax nañ ni sax esprit bi moo fi des mais quand même hmm. lu lu leer la ñu bind nii dissoudre nañ ko ainsi de suite. Hmm. je pense léegi eh, ñenn ñi nekk ci parti bi mais il faut ñu dem yeneen parti surtout que nag waaye Yewwi ñu ci bëri ci seen i leader dañoo déclarer candidature. muy Déthié Fall muy ñeneen. donc soxna Aïda Mbodj ak ñeneen euh, Alaaji Malick noo ko jàngatee euh, ci Yewwi Askan Wi mu jël dogal léegi ne génn nañu Khalifa Ababacar Sall taxawu Sénégal bokkatul ak ñoom. loolu moom defe naa ni bettul bettul euh, les observateurs avertis parce que lu doon xeeñ la. Euh, tey tamit lu ci bëri mi ngi commencé euh, exer exacerbé wu bi nga xamee ni euh, waa taxawu ak seen leader xalifa Sall dem nañ ci dialogue national bi mm. au lieu que ñu dem ci dialogue du peuple bi defe naa ni boobu ba léegi seen diggante retaxatul neexatul mais li ko gënoon a firndeel yi tamit mooy y a temps diggante Barthélémy Diaz ak Ousmane Sonko amoon na fi ay échange aigre doux seen diggante ba diggante bi tamit neexatul woon donc loolu yëpp ay jalon la yu nga xam ne da doon wane ni euh, waa waa ñii nga xam ni ñoo di waa taxawu dakaar commencé woon nañu xat ci biir coalition Yewwi Askan Wi parce que coalition bi aussi bu ñu fàtte comme ni ko moor waxee léegi que xalifa moom moo ko xalaat moo ko meññ moom moo ko sos ba mu taxaw mais bien que Khalifa moom moo ko sos ba mu taxaw bi ñu demee ba parti yépp daje aussi am na benn leadership bu nga xam ne Ousmane Sonko moo ko fa incarné partim aussi moom moo nekkoon locomotive bi moom parce que moo nekkoon parti de masse moom la xale yi gën a jox bopp moom la askan bi gën a jox bopp Ousmane nekkoon le leader charismatique mais dans tout cela ànd bi dafa am ay charte yu nga xam ne moom moo ko moom moo ko lal charte bi mooy nañu ànd ñun ñëpp ay parti lañu waaye partie bu ci nekk da nga am sa indépendance su bopp nañu ànd dem ci élection législatives yi nañu ànd dem ci local yi mm-hmm. waaye bu ñu eggee ca présidentielle ya kenn ku ci nekk mun ngaa jël sa yoonu bopp boo jëlee sa yoonu bopp bu ñu demee ba kenn jël deuxième wala boog ñu dem deuxième tour ñun ñëpp ñu àndandoo gunge ki nga xam ne mooy l'opposant le mieux placé mm-hmm. je pense que loolu moo doon charte bi mais egguñu foofu parce que démb li nga xam ne moom moo xew ci mbiru mairie de Dakar loolu moom moo acté officiellement divorce bi parce que aussi du lu nga xamante ni nii mën mën nañ ko cautionner parce que bu fekkee ni da nga jàpp ni respecté woo parité ca njalbeen ba nga ko war a régler mais doo bàyyi ba problème am nga ne naa dàq Abbas pour régler le problème alors que le problème était là depuis Mathusalem connu de tous donc je pense que ça c'est le goutte d'eau c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase mais le divorce était dans l'air du temps parce que Khalifa li nga xam ni aussi moom la bëggoon mooy bokk ci élection yi moo tax mu dem ca dialogue ba mais ñeneen ñi ñoom dialogue du peuple la ñu woote demu ca donc tey jii mën nañu wax ni divorce bi c'était inéluctable c'était inévitable ak waa taxawu euh, Dakar ils ils n'étaient pas bien vus bu ñu duggee gars yi dañ leen di xool bëtu sax di leen moytu ndax dañu am ay accointances ak le régime en place surtout la PR et Benno Bokk Yaakaar. Mmh. Chérif euh, est-ce que réagir gum nañ sax par rapport à ça. ñan la waa taxaw. Mmh. bon bon Barthélémy Diaz a essayé d'expliquer yaa ngi dégg Babacar Mbengue mi nga xamante ni ci ñoom la bokk li wax ci élément bi ñoom yàgg na parce que euh, boo xoolee par exemple les mots yi nga xamante ni utiliser nañ ko même si bon communiqué bi ci fond beeg ci forme bi am na ay problème déjà gis nañ ko ci xam naa yàkkamti xaw ma ci yan anam lañ ko bindee quand il de trahison d'exaction moo lay wan kon ñoom am na lu leen métti li nag nuyoo woon na xëy na ko yéex fay parce que depuis un certain gis en tout cas ci conférence de presse wala ay rencontre ñi nga xamante ni ñoom ñooy waa yeewee askan wi depuis bi ñu jëlee décision dem wuy ji Macky Sall ci li nga xamante moom mooy dialogue bi donc c'est pas une surprise li xew dem fële ci assemblée nationale pardon ci ville bu Ndakaar aussi la même chose parce que reprendre euh, bureau municipal bi loolu yoon la parce que comme ni ñu ko waxee wàllu parité moom dañ ko nit ñi dañ ko war a xëy na euh, comme ñoom waa PASTEF xamoon nañ loolu ba Abbas Fall n'était pas candidat c' est Marie Rose Faye moom moo bëggoon nekkoon candidate bu parti PASTEF bi nga xam ne dissoudre nañ ko xëy bu consensus amoon wala ban bu fekkoon jamono joom dégg Barthélémy Dias ak waa si nga xamante ni que mooy Ngone Mbengue min mujj a fal finalement après loolu waral sax ñu daal gedd daal di mais il faut aussi rappeler comme ni ko Mor waxee quand on de locomotive et cetera que Sonko aussi joué na rôle bu am solo ci li tax Barthélémy Dias ñun déjà nekk candidat bu yeewu askan wi lors des élections locale parce que xalifa bon sa candidate wala yéexoon na sax ngir demoon nañ sax ba nar a forkuloo parce que entre Soham Wardini mi nga xamante ni c'était la maire tent ak ki nga xamante ni mooy Barthélémy Dias xëccoo amoon na seen biir ba gisoon nga ko tractation yi bari woon na ba finalement Sonko joué na bu am solo ba. imposer sax à Khalifa Barthélémy Dias mi nga xamante boo xoolee n'était pas le choix même de Khalifa parce que à l'époque ki nga xamante moom mooy Soham Wardini la proposé woon après finalement bi ñu sax ci la soxna si moom it bari boppam nekk candidat dans le cadre ñi nga xamante ni mooy union citoyenne bunt bi xëy na loolu tax waa Pastef ñoom nga gis leen ñu am lu leen métti il part de trahison ak ñoom ñaar tam ñoo fi doon ànd Euh, Pastef aussi des fois loolu la woon quoi xëy na gars yi dañ doon naïf trop parce que nit aussi booy ànd ak ñoom des fois il faut ngay xool contexte yi nga xamante ci ngeen di ànd ak tamit jëf ji parce que mbir yi tamit changé waat na parce que bi ñu demee ba ci dialogue bi ñoom waa taxawu ce qui le proche à moo doon maanaam mbiram réhabilitation Khalifa Sall parce que ñoom bokkoon na nee nañ ci seen i charte ci seen combat même bi ñëwee ba assemblée nationale même si ils pas majoritaires defuñ benn jéego boo xamoon nee nañ naa tax Khalifa Sall bokk kon bu waa Benno Bokk foofu aussi ñu ñu taxaw si parce que Benno aussi joué na ci rôle bu am solo donc du mbiram bu soow je pense mais euh, fay bor parce que tamit bu xalifa bokkee Benno joué ci rôle boo xam ne am na solo mooy li xew bañ ko dem parce que bu doon député Benno Bokk Yaakaar yi ànduñ ci sa Sall ak Karim Wade ne seraient pas réhabilités bay naan dañu bokkaat ci course bi donc comme euh, ce qui s'est passé samedi à l'Assemblée nationale tey aussi bu amee Benno aussi boo xoolee même boo xoolee parti par parti am na 33 conseils donc yoon na ñu mën a bokk ci li nga xamante mooy bureau municipal bi parce bi mu mm. euh, nag on a vu Seydou Gueye bi nga xamante ni c'est le porte-parole de la paire daal ci bokk te loolu tamit réalité ci wàllu politique euh, te il faut que nit ñi aussi di ci bàyyi xel les gens parlent de trahison wala nanga mais politique ak loolu moom yàgg naa am c'est pas trahison mais circonstance du moment mën na justifier aussi ñenn ñi aussi di jël yenn position yi nga xamante moom la am parce que ñoom dañoo jàpp ni dañoo war a am candidat te candidat bi dafa war a bokk ndax euh, moom it c'est vrai que géniteur la wala bokk na ci ñi indi yeewi askan wi mais bi mu jàppale yeneen gars yi moom Khalifa na moom parce que xëy na atte boppam di jiite ñeneen et s'attendait à que en retour aussi ñee fay ko ko mais comme ñee dañoo yéex aussi Macky aussi day politique waa Benno di politique mënoo leen a kii ñu jéem a ñi nga xamante ñoom ñoo taxawu am lu leen lebal ci assemblée nationale di xaar aussi ci wàllu politique bu ko defee ñu jéem a euh, ku nekk doxal sa yoon. Hmm, euh, Ibou Diouf ndax mën nañ jàpp ne mbirum politique la quand tu donnes des coups il faut euh, s'attendre en recevoir également. waaw situation remettre au goût du jour li ñuy wax euh, l'élégance politique wala euh, démocratique parce que dañu jàpp ne bu am loon bruit tey xëy na li xew démb du am te loolu souvent dafay nasaxal xelu askan wi bu fekkente ne ay leader politique ñoo jiite yenn institution yi ak ni ñuy doxalee je pense que baaxul suñu démocratie donc euh, li ci déranger ñu bëri mooy lan moo tax ñu xaar ba am différence seen biir doog a jël décision bi ni mel mais on s'attendait à une situation de cette nature parce que xam nañ ne euh, quelque mois moo des ci élection yi donc forcément dina am ay querelle de leadership wala sax ay problème de positionnement ku ci ne di xool ñi nga xamante ne noonu nga mën a taxawee ngir am place bi gën ci yow mais quoi que l'on puisse yi moom c'est à éviter parce que baaxul suñu institution baaxul suñu démocratie et c'est quelque chose qu'on pouvait éviter. Mm, merci beaucoup Ibou euh, alors euh, léegi dañuy ñëw jàll ci beneen ponk muy un jour au Sénégal un jour dans le monde.